li gën a fës ci tuyéenekaay yi dañ koy tàmbali nag ak laaj bi nga xam ne populaire mi ngi koy laaj ni nag élection locale yi ndax dinañ ko amal ci app bi nga xam ne moom lañ ko jàpp li ko waral nag sama naataango bi nee na dafa am ay pexe yoo xam ne daal euh, ñi ngi euh, jug ngir nag fexe rek ba ñu dàq élection yooyu euh, ginnaaw nag Jean Paul ak Mbaye Jacques Diop sama bi di Moustapha Cissé Lo nag nekk responsable parti présidentiel bi ca Mbacke moom nag moom mooy wax ni daal war nañoo dàq élection yooyu yokk ci tamit li nga xam rek moom mooy yeex bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci liggéey yi nga xam ne ñu koy liggéey ci wàllu coppite code électoral bi nga xam ne boo moytul daal mu am loo xam ne dina ko gàllankoor donte nag am na ay euh, dalal xel yoo xam ne daal ministre intérieur mi ngi koy euh, dalal xel yi beneen laaj nag boo xam ne ñu ngi koy laaj ba tey lu jëm ci élection locale yi euh, Sud Quotidien nag moom moo koy laaj mooy nag lu jëm ci cumul mandat yi maanaam nekk maire ba pare yore beneen ndombo tànk loolu nag doon na loo xam ne daal engagement boo xam ne Macky Sall jëloon na ko waaye nag Ismaïla Madior Fall mi nga xam moom moo nekk président commité de pilotage bu réforme de l'acte 3 de la décentralisation moom wax na ni daal code général collectivité locale yi Euh, terewul euh, benn yoon cumul de euh, boobu ci ministre yi wala ay député moo tax nag Sud Quotidien di wax ni daal mel na ni mbir mi daal dafa mel ni daal pataas bu tàng boo xam ni dañ ko jox am Maxaar Mbow ak commission nationale de réforme des institutions wala sax commission technique bi yore lépp lu jëm ci wàllu réviser code électoral bi xanaa xëy na kon ki nga xam nag moom mooy ndey mbili gi daal moom mu fàtte lépp lu jëm ci xam daal jëm na ci wàllu wàllu politique euh, ba dëppoo ak euh, diggee bi nga xam ne diggee woon na ko daal di fi jëlee li nga xam rek moom mooy cumul des mandats yi Macky nekk à l'épreuve euh, de l'acte trois ni ko sama bi di waxee acte trois bi nga xam ne nag moom dafa mel ni statu quo la wote ci cumul des mandats bi loolu nag le quotidien moom moo ko bind boobu fekk bi ñu fekkee ni nag ñi ngi xool di lam-laamee ñan ñooy war a lëkkaloo ci élection locale yi ñëw nag ni ko Serigne Mbacke Ndiaye di waxee ci Walfadjri di wax ni daal PDS ak APR war nañoo ñoo mën a ànd l'observateur na di wax ni daal euh, dafa mel ni fippu moo nar a feeñ ci Benno Bokk Yaakaar Macky Sall xëy na waxu ko sax waaye nag mu ngi teg ay jéego yoo xam ne day mel ni daal day euh, sori lool Benno Bokk Yaakaar euh, ni ko sama naataango bi di waxee ñenn nag ci ñoo xam ne ñoom la àndal ci coalition présidentielle bi ñoom nag ñi di ñaawlu doxalin woowu di tamit li nga xam ne daal dañ leen beddi ci bépp programme boo xam ne daal dañ koo jëm jëmale ko ci guvernement bi coalition présidentielle bi nag mel ni daal dafa am lu leen topp bi ñu juddoo ba léegi ni ko sama naataango bi di waxee ndax daal euh, mel na ni euh, daal euh, lu jëm ci wàllu faagaagal ko moom la ñuy nemmeeku saa su nekk te nag xeex bi nga xam ni nemmeeku nañ ko diggante ay APS socialiste ca Médina te populaire ak l'observateur di ci dellu si mel na ni daal day gën a daal fësal lu ni mel Aïda Diong nag moom nekk koo xam ni daal Euh, bari na ñu koy seet si fale ca euh, kaso ba euh, daw coow bu direct foo nag moom moo ko bind ni nag xëy na sax looloo waral am ay restriction yoo xam ni nguur gi def na ko ci lu jëm ci wàllu woowu ba tey nag ci biir Aïda Ndiong nag le quotidien bind na ci di wax ni nag daal am na loo xam ni wax nañ ko loo xam ni du taqal na lool trésor public bi CBA noonu te ñoom dañoo raxasu ba set ci mbir moomu ci ministère de l'économie ak des finances ak tamit waa BCEAO laajee rek lu jëm ci euh, alalu Aïda Ndiongue bi autorité boobu nag ñoom nag euh, dañoo wax ni daal li nga xam ne jëm na ci boobu nga xam ne seen cliente bi euh, am na ko su fekkoon maanaam li waral ñoom laajuñ ci benn yoon ci mbir moomu moo di ni xaalis bi ci trésor public jugee moo waral nag sucré salé bieti su quotidien bi di wax ni daal xëy na sax xaalis bi ni mu baree mun naa ëlëmloo ñu bari waaye nag li laaj mooy moom ki nga xam ne daal moom mooy baron libéral bi nan la def rek ba ñu yombal ko mbir mi